salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñi ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp vraiment ñi nga xamante ni taamu nañ di ñu suivre su suñu chaîne YouTube mais aussi suñu page Facebook euh, parce que page Facebook bi bëri nañ compte nag pour ñu koy tàppee di nga gis Bah Diakhaté l'officiel di nga gis Bah Diakhaté kalaamul xaq di nga gis euh, Bah Diakhaté Albutlimi mais aussi euh, bi nga xamante ni tey ji euh, moom mooy daw le plus souvent mooy Euh, sàmm jàmmi réew mi donc ku ci bëgg kii da ngay tàppe foofu donc incha allah pour ñu mën a souvent di dabu yenn yenn yi ñuy jàllale comme ni ñu ko waxee rien ne sera plus comme avant cette politique de manipulation de désinformation politique gu sos yàq der bi nga xam ne ñenn ñi yaakaaroon nañ ni ñoom kot ñoo am mën-mën boobu mu am beneen xeetu politique bu génn muy politique bu indiwaat dëgg xeex fen dindi ko ci réseaux sociaux yi dindi manipulation dindi désinformation di informer juste et dem di gëstu di waxtaan euh, donc ñu dégg ñu bëri ci suñuy followers envoyé yu message whatsapp nañu dafa am benn ancien rappeur euh, boo xam dafa def live bu démb trois heures de temps ne moom dafa yor information dossier bi na ne RG moo ko jox primo li may njëkk waxtaan mooy gis nga fen pour euh, dëgg dindi ko jarul muy gudd lu gàtt ngay ñëw nga waxtaan ak nit ñi parce que ñun suñu exemple yépp ci alxuraan la jógee muy ki ñuy wax Mola Morgan tontu wu ko nag parce que wax dëgg yàlla boxe wuñ ci mbéb ba benn ring bi mukk mais ñi nga xam ni dañ amaana euh, yenn vidéo yëpp dañ leen di suivre ñu mën souvent jaxase seen xel ñu ñuy yónnee di ñu waxtaan ñun xam nga déjà live bu trois heures de temps yàlla subhanahu wa taala ci ni àdduna bi tonn ni àdduna bi ni mu tonn ci début ja suñu yonti yàlla suñu maam aadama ba ci kii mujjee juddu du léegi yàlla dafa tënk lépp ci fukki saar ak ñeent fukki euh, maanaam téeméeri saar ak fukk ak ñeent 114 surat la yàlla tënk àdduna bi donc pour jàngal ñu tënk maanaam yàlla fukki sa téeméeri saar ak fukk ak ñeent la tënkee àdduna bi tënk ko ci benn saar tamit wal asr baada auzu billahi mina shaytaani rajim wal asr inna al insana la fi xusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil xaq wa tawasaw bi sabr point final àdduna par le temps yàlla di waat ci temps par le temps ci dëxru ci jamono ci zamaan yàlla ne doomu aadama yépp perte nañu tout le monde lu dul ñi gëm yàlla ak ñi nga xam dañuy jëf lu baax donc ku jëfut lu baax mooy tolox nga perte nga yaa ngi ci ñu perte ñi mais nag di dénkante dëgg mais xam nga dëgg moom bu ñëwee foog saaga ñëw gis ngeen dëgg ba ngeen ko waxee gars yi commencé man li ma jot ci appel yi may saaga bëri na mais ma leen wax toujours ne leen ndongo daara ngeen di waxal jikko bu ngeen indi rek fekk fi beneen waaw donc euh, di wax jokkalante dëgg te dëgg bu ñëwee ba yooyu am tamit ñu muñ gëm li ñu gëm continuer ci lancé boobu moo tax pas-pas boobu moo tax lenn ci lu ngeen di def mënuñoo yëngal du ay menace de du ay menace saaga du ay dañuy duma don du yooyu moom c'est le cadet de nos soucis watawaasaw bil xaq watawaasaw bi sabr beneen bi mooy li ngeen war a wax moolaa mooy yéen bi saasam dafa ne xayrul kalaam maa la wa dal wax yi gën ci wax yi mooy wax du gàtt ba pare tegtale ñu ñuy wax day gàtt ba noppi tegtale mooy Mollah li mu fi liir yëpp nee na moom mooy complot bi nga xam ne ñoom Mamour jàlloo ànd seek Mathiam ànd seek ñoom nangam sangam lim nee na ba mu commencé ba nii bu ngeen dégloo waxam danaa ci génn ñett mbir yoo xam bu ngeen dégloo waxam xam ne déjà wax bi amul njëriñ gudd na mais aussi fenloo na Ousmane Sonko fenloo Ndeye Khady Ndiaye bi jiitu bi mu ko fenloo mooy Ousmane Sonko ci bi muy wax euh, dañ koy tegtal suite boo di mu ne da ko jaawatle ba muy dem Ousmane Sonko mi ànd ak xaritam di doxantu ba waa ji ne ko pourtant fii salon de massage la ba mu ne ko dinaa fi ñëwaat donc nan la Ousmane Sonko kon ñëwaatee jaawatle Imod seen ak Sweet Beauty ba donc mën nga jàpp ne ay dof ngay waxal mais nit ñi ay nit lañu benn donc RG bu lay jox information du la jox xeetu information yooyu waaw ah, RG xanaa sa conscience tordue mooy sa renseignement généraux beneen bi mooy. Euh, nee nga ci biir waxtaan seeni mbokk joolaa beneen Ibrahima Coulibaly du joolaa il est né à Bakel saraxule la donc saraxule joolaa yàlla ak yaali la maanaam saraxule boo ko bëggee def mbokk da nga koy def man niñ ko wala nga def ko bambara ci si ñu ñu mbokkoon ñoom seen langue sax xaw a am similitude malinke yi la mandinko yi donc bambara yi sooninke yi sooninkar donc ñooñu mën nga jaawal la ni ay mbokk lañ mais joolaa donc Ibrahima Coulibaly moo Ousmane Sonko amul ñu leen mën a boole ba ñuy waxtaan seen waxtaanu joolaa beneen bi mooy nee nga Aïssata Ba ci biir waxam ba ngeen koy dégluwaat Aïssata Ba yéerndu ne xanaa du keddu Ousmane Sonko ci moment moment bi nga xam ni Ndeye Khady Ndiaye arrêté na euh, damp dàmp ñaari yoon la dàmp Ousmane Sonko arrêté après Adji Sarr jël loolu tamit dama leen wax ni ginnaaw bi nga xam Ndeye Khady Ndiaye damp na Ousmane Sonko ba mu pare beneen femme bu ñuy wax faatu moo ko damp kooku bàyyi dem beneen faatu bi ñëw di ko damp faatu boobu kon di ko dàmp ba Adji Sarr ñëw faatu bee dem suite massage mooy faatu bi Ndeye Khady Ndiaye di wax kooku dem suite massage Adji Sarr des fii donc ba mu desee foofu fin 2019 maanaam ci deuxième semestre 2019 ci la Adji Sarr ñëw foofu noonu dajeeg Ousmane Sonko di fréquenté foofu mu koy maase après bi nga xam ne faatu bee dem na beneen faatu bi ñëw donc mu koy maase ba janvier 2020 premier 21 janvier 2020 ci la Adji Sarr wax ci la ko Sonko njëkkee violé kooku bàyyi Ndeye Khady Ndiaye woowaat ko mu ñëwaat donc loolu dama ko bëggoon clarifier donc euh, lii dama ko bëgg wax rek pour tënk leen ni lam fa wax yëpp euh, lii moo koy firnde li ma leen waaje wax nii gis nga teesu complot bi ñu wax ni Mamour jàlloo nangam sàngam dañoo toog ñu étayer seen propos ñoom ñi ne Sénégal ñoom ñi ne Sénégal muy Babacar Sadekh Top Babacar Kewulo Pape Alé Niang jamono yëpp ñu ngi nekkoon ci préparé nday Khady Ndiaye ci bu demee wax ci complot dugal ci Mamour jàlloo parce que ñoom ba ñu xoolee seen ligne défensive dañ xam ne juridiquement parlant Sonko est foutu ñu indi teesu complot Sonko ne woon day porter plainte wax naa leen poser leen ko ay question te loolu dinaa ci ñëw donc Sonko ne woon day porter plainte mais lu garaawee nii comme ni ko Morgan jàppee ne moom la garaawee yéen ngeen wax ci Sonko di ci wax. Pastef di ci wax ay journalistes di ci wax Babacar Touré di ci wax Pape Alé di ci wax Maître Tall di ci wax Birame Souleye Diop Bassirou Diomaye Faye fay ah, nu mu tudd sax El Malick ñooñ ñëpp di wax teesu complot ñooñu ñëpp ils sont incapables de lire cela jël jël benn wax jox ko ab dof bu ne bitim réew pour mu lire ko vous croyez que si c'était si sérieux que cela Pape Alé Niang du moo ko liiral boppam ci ay chroniques yi muy def si c'est si plus sérieux Babacar Kewulo mi nga xam ne amatul lu mu wax. li mu wax mooy aji Sarr dafa liggéey nday Khady Ndiaye ba tey ñu mujj ci Adji Sarr dee na donc si ce dossier bi ngeen bi ngeen jox euh, l'autre là moom jàppoon ngeen ni dossier bi c'était sérieux wax dëgg yàlla di ngeen di ngeen ko waxal seen bopp mais xam ngeen ni kuy déglu dina xam ni un dossier doit être arrimé par la dans une cohérence absolue dans une cohérence totale li ngay wax muy am ay firnde am ay tegtale moo laa lim liir yëpp c'est truffé d'incohérence truffé de voilà donc koo xam da nga tiim di jàngal di liir loo xamante ne xamoo ci dara dañ la jël jox la tay bu njaay fay le cachet je vous ngeen téye tur ma leen di jox l'affaire c'est Babacar Sadikh Top bind na livre ci Ousmane Sonko Pape Alé Niang Babacar Kewulo Tahibou Ndiaye maintenant pour ma revenir ci li may wax bu njaay waxoon naa leen keroog 4-4 ba 4-4 ba bi Babac bi bi gendarme Touré daje woon ak usmaan Sonko le 6 mars 4-4 boobu 4-4 bu Taïbu Ndiaye la 4-4 bu Taïbu Ndiaye la Taïbu Ndiaye moom moom oto bi moom Ousmane Sonko Babacar Touré ñoo tënk seeni tënk falsifier ay procès verbaux moo tax ma leen doon wax démb des procès verbaux falsifier seen procès verbaux jox ko Pape Alé pour mu liir ko jël fay Babacar Kewulo ak ay matériel mu dem Sweet yi changer lieu yi ñu falsifier li nga xamante mooy Sweet yi parce que rapport yi rapport yi Babacar euh, gendarme Touré yóbbu yóbbu yóbbu ci hiérarchie bi beneen bi mooy lii xew démb c'est-à-dire que ni le cachet a été payé le le le le le le le fameux scénario a été a, a, a, été, a été élaboré par Babacar Sadekh Top Pape Alé Niang Babacar Kewoulo ak El Malick Ndiaye donc liggéey ko jël koo xamante ni leer na leer yàlla ñoom buñ ko bindoon Sénégal ñu topp leen loolu la xam moo duñ ko liir te daal liñ fa liir démb buñ ko bindoon Sénégal wax ko fi Sénégal nit ñi topp leen parce que xam nañ ne newuñ ci dëgg parce que bu ñu nekkoon ci dëgg Ousmane Sonko porté na plainte bu yàgg pour complot bi ñu ko comploté ma bëgg. Ndeye Khady Ndiaye mi njëkk wax théorie complot diir leen procès verbaux yi Ndeye Khady Ndiaye bañ koy entendre ci première entendre dafa ne ci li jiitu ci biñ koy entendre dafa ne nangu naa maa ngi seede ni gendarme Touré wax na ma ni am nga droit am avocat mais maa ngi wuyu ci enquête bi sans pour autant avocat toog donc première séance am avocat toogu deuxième séance am avocat toogu Babacar Touré ko bind kooku nan la ab mu taxaw wax ni bañ may woo di ma proposer quarante millions sama avocat moo ma ne bul jëlati appel te ci biir procès verbaux yi gis ngeen ni ab avocat toogu fa loolu ndey Khady Ndiaye moo ko wax Babacar euh, mu tudd gendarme gendarme gendarme Touré bindu ko donc yaa soit ñaar moo am soit Babacar euh, gendarme ture fen na ci procès verbaux yi soit Ndeye Khady Ndiaye fen na mais loolu c'était difficile pour ñu te thèse bi parce que tout simplement c'était pas réfléchi en ce moment amuñu woon tous les moyens vous voyez a ah, jamono jooju mësuñoo lim Mamour Diallo mësuñu koo lim kan lañ doon lim maître Dior Diagne kan lañ lim le le le grand le grand le très grand ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome kan lañ doon lim ñooñu lañ doon lim ci dossier bi dañoo dem a dem a dem a dem ba recouper gëmloo leen nii donc comme te nu mu tudd Ousmane Sonko dafa tuumaloon Mamour Diallo Mamour Diallo moo def lii pour fayu comment le faire maintenant ils vont essayer de faire un scénario qu'ils vont donner à un scénario boo ko bindee pare théâtre boo ko bindee pare koo koy jox comédien quand écris un scénario boo demee ba koy jox comédien nga koy jox parce que le comédien est chargé d'interpréter li nga xam moom moo ne ci kayit bi donc loolu mooy li nga xam ne moom la moo Mollah Morgan def démb cest à que on a écrit Babacar Sadekh Top nu mu tudd sax euh, Pape Alé Niang ñoom ñëpp lan moo tax liir luñ ko seen bopp parce que buñ ko liiree fii yoon teg leen loxo moo tax jël ko génne ko dem jox ko moo laa Morgan Mollah Morgan liir ko sans pour autant sax mu xam li muy liir c'est truqué d'incohérence mais aussi di sosal Ousmane Sonko en même temps parce que Sonko moom dañ ko tegtal dañ ko tegtal suite booti nday Xadi Njaay ba mu ñëwee maanaam da ko dafa jaawatle yow nga ñëw ne xaritam moo ko joxoñ ne ko fii salon de donc fii salon de massage ku xool Imod Sène nu mel xool suite body spa nu mel déjà fee tabax ba étage la bu gudd gudd bii terrasse la bu rose benn ñaareel bi mooy moom mu taxaw wax ni ba mu Ndeye Khady Ndiaye taxaw mu ñëwee dafa ne ndax fii c'est Imod sen mu ne ko non fii c'est suite body spa donc te yow moo laa moo gën nga ne dafa ànd ak xaritam xarit bi yónni ko fii la fii mooy salon de massage bi donc euh, beneen bi mooy nga ñëw noo mook Ibrahima Coulibaly ñuy wax mbokk joolaa feeñ fa nangam sangam Ibrahima Coulibaly yaayam ak papaam yëpp Bakel Ibrahima Koulibaly Bakel la juddoo nekk Saraxule mën dem mbokkoo ak ak ak ki nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy Ousmane Sonko donc voilà Ousmane Sonko yaayam séeréer la papaam nekk Joola wax ma foofu rek fan la ñu war a mën a mbokkoo usmaan Sonko yaayam Xadi Ngom baayam Mamadou Sonko ma wax leen nag benn wax boo xam ne ñun suñuy information dañ leen wax rek ngeen dem ngeen gëstu gi mooy euh, Babacar Touré Pape Alé Niang xam nga dans toute chronique boo xamante ni judiciaire la day am profil de l'accusé boo xoolee reportage yu bëri yu am ci wàll ci wàll crime day am profil de l'accusé moom mooy profil de l'accusé mooy munu leen taxaw fii ne Ousmane Sonko vie privée kenn du ko lu njëtu parce que nit ki li muy def boo ko bëggee xam da ngay xam mooy kan ak fan la ko jëlee ñun ñu taxaw ñu ne leen ba ñu defee suñu te dinañ ci ñëw chronique chronique bi dañ ci ñëw wax mooy kan ak fi mu jógee mais pour ma résumer leen mu bëgg wax mooy bu ngeen demee ba Casamance. bu ngeen demee ba Casamance laaj leen mag ñi nekk Casamance lan moo tax papay Ousmane Sonko di doon ko woowee dulakët ci Joola dulakët laajte leen ko du dulakët lañ doon woowee papaam xool leen lu muy tekki du dulakët benn ñaareel bi mooy laaj leen ñi nekk impôt et domaine laaj leen ñi nekk impôt et domaine Ousmane Sonko ajuma yi benn ajuma la doon julli ji sur trois laaj leen ko mu wax leen mankaañ ba fa nekkoon ci xale bu jigéen mankaañ ba nekkoon euh, impôt domaine xale bu jigéen mankaañ bi nekkoon impôt domaine <laughs> dinaa ñëw ci tur bi bi newoon impôt domaine bi mu doon seqanteel ay rapport ci biir impôt domaine laaj leen ko ko moom danañ ko wax pour vous dire que ñun duñu waxantu on a tellement de choses sur le gars boo xamante ni kuñ taxaw wax na ni soo ko def na ni doo ko weddi bañ lay mën bañ lay ñëw nekk di nekk naan dañ lay complot te jarul Sonko toute sa vie durant ci loolu la dox taawam ci loolu la ko amee il a eu cinq mariages en quarante ans xale bu ndaw bu am quarante ans am cinq mariages cinq mariages trois divorces laaj leen gëstu leen dundam cinq mariages def trois divorces trois divorces yépp li ko indi moom mooy affaire infidélité donc ñun taluñu wax dëgg yàlla nekk fii di. toog trois heures de temps di déglu scénario boo xam ne c'est mal conçu parce que tubaab dafa ne tout ce kii sa tout ce qui se conçoit bien s'annonce euh, tout tout ce qui se conçoit xawma bien s'annonce clairement et le tout ce qui se conçoit bien euh, s'annonce clairement et pour le dire viennent aisément su ma juumu noonu la ko waxee donc euh, voilà tu t'es perdu à un moment donné si fil bi ñu parce que tu n'as rien compris ay feuille lañu la jox bind la scénario fay la cachet donc mu des 2 millions Mollah Morgun cachet bi maanaam cinq millions la ñu fay la 3 millions dese la 2 millions pour nga liiral leen loo xam ne ñoom sañ ñu koo liir Sénégal parce que bu ñu ko liiral Sénégal yoon teg leen loxo donc di nuyu sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, dinaa ci ñëwaat gën a yaatal 4-4 bi bu tay bu njaay bi bu giri bi dinaa ci ñëw wax naa leen loolu jarta yàkkamti dama leen jox ay laaj complot bi wax leen tekki leen lan mooy complot bu ngeen ñëwee rek après ñun dañ ñëw ci mbir ba leer naa ñu wasalaamaaleykum